salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi leen di ziar di leen nuyu di ama ci mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ euh, ci seen émission petit matin ma di ci ànd ak euh, Abdou Aziz Diagne ak euh, Sarata Aydara di ziar Alaaji Ceerno Moule Sow di la xalif général des Guinée di le roi médecine traditionnelle internationale du monde the king of the king sëriñ bi maa ngi lay ziar di ziar say waajur di ziar aussi fan sa fans ceex Thierno Moule Sow yu nekk fépp ci àdduna alors kon tey euh, balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek euh, damay nuyu sama naataango Abdou Aziz Diagne ñu ngi lay ziar Abdou Aziz. maa ngi delloo ziar Moustapha. Hmm. di nuyu Sarata di nuyu ñiy seetaan. alors Chérif Aïdara Sarata ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Moustapha Fall. Mm-hmm. alors mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm. waaye itam maa ngi ziar itam suñu doyen mu nekk Aziz. waaye itam duñu fàtte nag suñu caméraman yu xarale yi waa équipe Kara 221 waaye itam duñu fàtte suñu doyen itam Saliou Samb mu nekk nag ki nga xamante ni moom itam dugal na ci loxo loxoom ngir euh, émission bi gën a yem. alors tey émission petit matin euh, thème bi ñu leen di indil mooy raj euh, rajo. yi nga xam ne am na démb mooy jàppante yi nga xam ni fan yëpp mi ngi am ci Ndakaaru mhm. euh, jëm ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr alors ñu gis euh, démb euh, Macky Sall def na discours Ousmane Sonko def discours tey loolu la ñu fas yéene décortiquer mais également wax ci rôle bi nga xam ni am na ñoo xam ne dugal nañ ci seen loxo ba jàmm ji delsi mais également gis nañ ñi dëkk bi aussi lu bare bare dañ ko yàq alors Abdou Aziz yàgg nañ fi jàpp ay politiciens di fi jàpp ay leaders d'opinion euh, mu mel ni li ñuy wax ci tubaab euh, l'affaire Ousmane Sonko a été le la goutte d'eau euh, de trop maanaam Sonko mu mel ni moo dem ba mbir mi daal yegg foo xam ni kenn mësu koo xalaat ci senegal dëgg la Moustapha heureusement que man bi déglu dem Ousmane Sonko mu wax nee na lii du ay nitam rek kese. boo ko doon nat dix pour cent la li ci des yëpp peuple sénégalais ñoom ñoo génn wane seen ras-le-bol par rapport ak li ñu doon dund ci temps yi yëpp su le plan économique sur le plan aussi boo xoolee pandémie bi nga xam ne ñëw na tamit gën a gën a gën a maanaam euh, affecté suñu économie bi bon ba pare ñu teg ci noonu couvre-feu bi ñëw maanaam frustration yi dafa bari woon ba nga xam ne tey Euh, comme ni nga ko waxee rek mooy laa goutte d'eau qui a fait déborder le vase et finalement nit ñi boo li ñu naan euh, kaw diir sax boo ko boo ci tegee euh, maanaam kubéer gi su baxee soo buul kubéer gi dafay sànni kubéer gi te defe naa ne ci situation bu lañu génn Moustapha alors Sarata dégg nga Abdoul Aziz Diagne yi mu wax léegi mhm. par rapport ak li xew démb mhm. alors mu mel ni dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mhm. maanaam li ñuy wax ci tubaab montagne bi accusé na Euh, jàmm. Euh, xel yi dellusi waat na. Euh, mu mel ni dossier bi xaw na taal réew mi. Uh-huh. mais jàmm ñëwaat na. Uh-huh. man du ma ne sax xaw na taal réew mi. Uh-huh. taal na ko ba pare. li ma ci jàng mooy que ni Macky Sall. li mu war a tàmbali. lu mu war a njëkkee foofu la mujj. maanaam ci sama ci sama gis-gis. maanaam euh, avant que ni lii yëpp di am. mënoon na génn waxtaan ak peuple bi waxtaan ak askan wi parce que ñun si sous contrôle ci sous gouvernement am lañ nekk. ñun ay njabootam lañu. mooy le gardien de la constitution. c'est ça en fait donc moom dafa waroon jóg waxtaanal askan wi balaa lii yëpp di am parce que déjà comme ni ko doyen waxee ras le bi moo moo moo bëri ci jeunes yi. parce que ñun jeunes yi euh, ñu ci bëri. amatuñu xëy amatuñu gont ah am na entreprise yi nga xamante ni sax tëj nañ leen yaa ngi dégg couvre-feu bi tamit ñëw na couvre-feu bi nga xamante ne amatul sax njëriñ ci askan wi. loolu daañu ci wax ci kanam. waa dinañ ci wax dinañ dinañ daañu ci dellusiwaat mm-hmm. incha allah mm-hmm. waaye li ma mën a wax que ni mooy Macky Sall instant bi dafa échec dafa échec. kër tax dafa échec mm-hmm. parce que dans tous les bords parce que moom bu <coughs> toogee ba seetaan ba askan wi di reyante. déjà damay naan sax benn côté dafa wàccee maanaam grade homme de tenue yi parce que on peut pas euh, on peut pas admettre que ni nit ki benn askan rek walla Sénégal sax le le minimum de de, de Sénégalais ñu génn don dans dans les rues di di di di ah, di di di di yàq ay kii di di di di di di maanaam di dugg ci di yàq voilà di toj di yàq voilà mu muy génne ay militaire hmm. ay suñu suñu homme de tenue yi nga xamante ni macha allah wóolu nañ leen hmm. ah mu génne ñooñu pour une simple kii ni bi nga xam manifestation bi nga xamante ni hmm. lu ma koy tuddee maanaam amul sax njëriñ en fait mais ngir lu mu génnee as euh, militaires yi <coughs> ñu génn dans dans dans le terrain di di di dàkkanteeg ay xale yu ndaw wala di dàkkanteeg ay ay ay sénégalais de de de de la population civile ci dellu si ah, waaw dinañ ci dellu si mais loolu amatul benn njëriñ en fait d'accord dinañ ci dellu si léegi dafa wàccee ñooñu seen grade dinañ ci dellu si léegi Sarata nga teg sa loxo foofu ah, Abdou Aziz est-ce que nekkul aussi li gën a xaw a ñagasal affaire yi gën a compliquer mbir mi fan yi est-ce que nekkul discours le ministre Antoine Félix Diome le ministre de l'intérieur parce que ci discours am dégg nañ ko muy tudd ay affaire ay ay ay terrorisme ay affaire eh, conspiration mu nekk ay mu gis nañ daal ci discours bi dafa mel ni eh, double discours la maanaam ñaari discours la daal est-ce que loolu nekkul aussi moo gën a eh, mettre de l'huile sur le fa mais bien sûr euh, am na ay propos yoo xam ne nii ministre de l'intérieur wax na ko. Mm-hmm. man bu ma nekkoon place am du ko wax. Mm-hmm. man. Euh, je ne suis pas totalement en phase ak Saarata li mu wax. man au contraire damay magnifier le professionnalisme de nos forces de sécurité et de défence parce que nag lii muy wax. affaire bu ba ci tirer ay bal ci population maa ngi ñëw lii non attendez on a une armée républicaine. Mm-hmm. Uh-huh. on a des hommes yoo xam ne nii man dama magnifier seen professionnalisme. parce que mm-hmm. contrairement li nga wax ne lii affaire bu ndaw la du affaire bu ndaw. Mm-hmm. parce que combien de personnes waaw waaw déglu attends pas besoin d'amener parce que il faut voir aussi mhm. que des honnêtes citoyens ont été attaqués à coups de barre de fer à coups de n'importe quoi ñoo xam ne nii ils ne sont même pas des manifestants ils ne sont même pas politiques mhm. ñu duma leen taal seen kër yi taal seen alal mhm. loolu ku toog naan affaire bu ndaw la da nga xamul xëj na li nga xam ne mooy la réalité bi amoon en face. tey y a eu au moins une dizaine de morts. benn mort rek ëpp na. Astamak on parle d'une dizaine. mais bu fekkoon ne ni tey les forces de l'ordre tey maanaam possibilités yi ñu am yëpp dañ ko utiliser. kon tey on aurait dit des centaines et des milliers de morts c'est pourquoi je magnifie encore le professionnalisme de nos forces de l'ordre parce que d'abord on a vu des images. des forces de l'ordre yuy reculer pourquoi ñuy reculer te pourtant am nañ loo xam ne ni tey ñoom mun nañ attaquer mais pourquoi ñuy reculer peut-être repli stratégique la mais bu fekkoon ne ni tey ñoom doole ñi am yëpp dañ ko génnee kon xëy ne tey defe naa ne tey heure bii xëy na sax duñ toog fi di wax. moo tax may la man vraiment je magnifie leur professionnalisme surtout. alors Abdou Aziz dégg nañu ñu wax Sarata. Mm-hmm. Mm-hmm. alors li ah, Abdou Aziz wax. Mm-hmm. est-ce que dans tout ça aussi. est-ce que état bi amu ci part de responsabilité. mel ni la loolu lépp xiif. Mm-hmm. parce que gis nañ ñu fay. ñu gis nañ ñuy dajj ay Auchan. Mm-hmm. di dajji ay station di fa jël ay xaalis ba ci mm-hmm. am na banque boo xam ne nee nañ jël nañ fa deux cent millions. Auchan yi dajji nañ ko jël lépp lu fa nekk lekk. ñu gis sax ay borom kër yoo xam ni euh, dañu yenu ay saaku ñëw seen kër teg ko. di di di di di ko commenter mu mel ni population bi xiif moo leen dugal ci loolu lépp sarata euh, lu may njëkk tàmbali mooy que ni mus euh, doyen Aziz lu mu wax nee na professionnalisme. peut-être professionnalisme baa ngi foofu mais ci niveau bi ci situation bi y' a pas de professionnalisme mm. parce que je ne peux pas admettre que yow nga ne yow da nga ñëw pour défendre mm. la population mm. assurer la sérénité de la population yow ngay nekk fii nii pour une petite manifestation nga nekk di tiiranteeg ak ay manifestants yow mi da nga ne lu lu rëy la mais man au début au début de la manifestation c'était pas c'était pas c'était pas grave en fait graawul woon parce que euh, bu bu fekkoon ni ñoom ànd nañ ak manifestation avec calme bañ a tere li nga xamante ni moo nekk sa manifester mais lii yëpp du am mais tey tey tey tey boo gisee askan wi c'est pas parce que dañoo àndal ak euh, Sonko mais parce que ils en ont marre. de Macky Sall Sall de son gouvernement loolu moo war a askan wi fipp am occasion bu mel ni Sonko na Sonko sant yàlla bu baax. sant ñëpp àndu ñu ñu gis ñëpp ànduñu ak Sonko. la plupart. Mhm. ànduñu ak Sonko. Mhm. mais parce que euh, xiif bi manque d'emploi mais bi Macky Sall génnee ak discours am mais xoolal discours bi image de la description que ni nu mu defee maanaam euh, euh, nu ñu koy waxee discours bi da ngay xam ne ni kii am na li ko métti. Mhm. am na li ko métti mais itam ruus na te am na lu bëree bëri li nga xamante ni euh, dal na ko tey. moom kan Macky Sall te mu moom Macky Sall. Mm-hmm. man dama dem sax ba yërëm ko. dëgg mm-hmm. ci rajo laa ko doon dégg alors discours bi lan lañ ci mën a jàngat. ci ah, discours liñ ci mën a jàngat def na apaisement. Mm-hmm. Mm, def na apaisement. il a fait appel à la à apaisement. mais est ce que waru woon tàmbali ci apaisement bi. avant ñuy egg ci avant ñuy egg ci yenn moor yeeg yooyu. waaw ñuy yegg ay moor ak ñoom sedd yaa ngi dégg mm. donc nag dafa waroon génne depuis le début waxan ak askan wi mm. lii ak lii la mm. parce que pour que askan wi au moins mu am benn stabilité mais def ko dafa dafa dafa dafa toog ci coin di seetaan ba affaire yëpp ko waaw ba ëpp ko loxo ma may wax man loolu bertu ma de bu mu nee non je remercie les chefs coutumiers les religieux euh, les les nangam nangam man loolu bertu ma de man xamoon naa ni foofu lay tàmbali parce que xamoon naa ni amatu mu lu muy wax lan lay wax askan wi amatul lu muy wax mais prétexte la yow naan je j'ai entendu les chefs coutumiers les chefs religieux affaire yooyu noonu te chefs religieux yi ñu ci bëri waxante nag moom ci suuf ci njëkk ak teraanga mais déggu leen ku ci mel ne xalif général de sëñ Muntaxa waxante nag moom nit ñi dégg nañ ko wala dégguñu ko waxante nag moom euh, ñeneen ak ñeneen ñi nga chef religieux yi bu ñu tam bu ñu xoolee ki nga xamante ni moo nekk xalif général de Niassène Léona Niassène mm-hmm. kooku waxoon na waxoon na ci waxam ci ci waxam ci kàddam nee na nit ki booy waxa dangay waxante ki neex a déglu ki ki neex a waxanteel le le mot alors euh, Sara Sarata dinaa dinaa del si waat ci yow léegi euh, Abdoul Aziz nan nga mën a jàngatee euh, la médiation qui a eu lieu venant des familles religieuses parce que gis nañ ils se sont réunis avant-hier def benn waxtaan boo xam ni vraiment gis nañ ci guddi gi affaire yi xaw na am yolomal un peu Euh, place su euh, religieux yi ci ci ci ci li xewoon fan yi waaw def nañ li ñu doon xaar ci ñoom parce que ñoom c'est des régulateurs sociaux. Mhm. on les appelle des régulateurs sociaux ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mhm. et aujourd'hui on a vu le résultat. Mhm. mais man damay condamner les scènes de violence yi am dans toute sa forme. loolu kenn du ko rafetlu. du dëgg kenn du ko rafetlu maa ngi ñëw rek laisse-moi terminer. xam nga man boo neex dama la déglu religieusement je n'ai pas bronché mais violence yi am laa la wax il faudrait pas que ñu ne ni dañoo xiif moo tax ñu dem def ak de vandalisme parce que nit dem na toj magasin jàmbur bàyyi fekk yaa ngi bàyyi ceeb sa kër su fekkoon ne nit lu mu amul rek day dem sàcc ko wala mu dem rey nit kon defe naa ne tey pays bi tey dina demee neneen donc il faut de quand même ñu xam ne am na loo xam ne loi bi moo ñu ko permettre. mooy le droit de rassemblement le droit de marché une marche doit être une marche doit être mais ce gouvernement a amené comme prétexte. ça je peux être comme je peux ne pas être d' accord quand je dis je peux être mooy. dañ ne nekk dans une période de pandémie. que dañu tere les rassemblements. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. maintenant. maintenant rassemblement boobu ñu bañ. ils étaient obligés maintenant de déployer plus de moyens que bu fekkoon nañ encadrer rassemblement bi. mais Abdoulaye mais Abdou Abdou ah Sarata ma ñëw. waaw ma ne ah ok je vous écoute alors alors marche boo xam ni. waaw euh, état bi xam na ni. waaw su bàyyee mu am mën na am euh, ay musiba. waaw est-ce que jàpp nga ni marche boobu dañ ko war a dañ ko war a autoriser wala dañ ko war a. waaw moom laa wax xam nga boo déggee ma ne la. Mhm. y a deux formes. Mhm. d'abord la marche non autorisée. Mhm. ak la marche encadrée autorisée la marche noonu autoriser mooy lan amuleen leen droit ngeen def ko parce que dañ ne période pandémie bi moo tax kenn amul droit def rassemblement mais bu ñu demee ba circonstances yi présenté wu nga xam ne nii tu es en face d'une foule déchaînée nga xam ne nii forcément mën nañ marche mais nga encadré ko parce que circonstances yi moom moo laaj loolu moom moo ko laaj parce que di nga débloqué ay moyens yoo xam ne ni xëj na soo ko encadre nu xëj na doo débloqué moyens yooyu parce que nag gis nañ après les gens les militaires les forces de l'ordre sont sortis des casernes pour ñëw maanaam di rep di réprimer la marche la alors que moment boobu il suffisait simplement avec ce le les les forces de l'ordre avaient sur place ñu encadrer leen ñu bàyyi leen ñu dem ñu dem moo tax may la moo tax may la foofu aussi tamit je ne suis pas en phase avec eux du dëgg mais dama leen encore li may regretter mooy te defe naa ne képp kuy Sénégal tey warloo ko rafetlu mooy on s'est attaque à des biens publics mm-hmm. on s'est attaqué à des biens privés tey maire yi nga xam tey xale dañ fa juddoo war fa amee kayit jur tey ñu dem taal xale kayit yooyu tey mais quand tu brûles l'acte d'état civil d'une personne c'est comme tu la personne dem bay taal ay këru ministre de l'intérieur ak ñu dem di taal mais ña fa nekk ay sénégalais lañ mm-hmm. pourquoi ñuy def loolu mm-hmm. ay brigade am déet ki nga xam ne ni tey moo yow sa kaaraange moo yor sa kaaraange ëllëg soo amee problème da ngay dem ci moom. Mm-hmm. ngay taal brigade nga dem tey maanaam di ko faagaagal di ko fragiliser. Mm. tey imaginer wu tey bu ñu bàyyi woon tey nit ñi. tey ñu dem accéder dans les commissariats tey. Mm. ak dans les casernes la fa nekk ci ay armes ñu jël ko mais ces armes la on va les utiliser contre nos contre nous-mêmes. tout à fait c'est pourquoi je dis que les formes de violence quel que soit fu mu jógee ak ku ko munti commande ak ku ko munti def je suis entièrement contre alors Abdou Aziz euh, Sarata Sarata il faut que ñu avancer. Mhm. parce que temps bi li may non Sarata Sarata non Sarata Sarata non Sarata. il me reste cinq minutes. Euh, bëgguma ñu dellusiwaat. Mhm. Euh, dama bëgg nga tontu ci laaj bi mooy dañu gis ni. Mhm. coow li bi mu xewee ba léegi. gis nañ ñi nga xam ne ay porteur de voix lañ. muy chanteurs yi nga xam ne ñi ngi fi nekk. Euh, macha allah nit ñi di leen déglu. Mhm. ñooñu gis nañ ni affaire bi bi mu amee ba léegi euh, mhm. c'est le silence total maanaam euh, waxuñu daal. Mhm. nan nga gisee seen taxawaay. <coughs> mais Moustapha nee naa la nga may ma. ma mënul non mënul nekk Sarata non nañu avancé non. non non non mënul ne non non dama bëgg nga tontu ci question bi. c'est un non non non mënul nekk Sarata sinon je serais obligé de me retirer waat parole bi. ma poser la question à juste parce que il me reste cinq minutes. parce que il faut ñuy avancer il y a mm-hmm. des questions. Mm-hmm. bu fekkee ni bu kii waxee ñu reveniraat ci boobu. kon du ñu dem mais c'est juste que mais dama la ko ñaan rek il nous reste cinq minutes dañuy avancer wala ma mm-hmm. poser la wala Abdou Aziz répondre ci question bi ñu avancer. ok pas de souci donc euh, loolu. nopp waay euh, kii les les les artistes. nga xam ne ay porteurs de voix lañ quoi. voilà ñoom comme que dañoo opté ni ay porteurs de voix lañu. en ah, porteurs de voix lañu de de manière générale. waaw ñu gis na am na ñenn ñu manifesté wu. comme ku ci mel ni Gakam Blindé. kooku gis nañ ko ci manifestation yi. waaye ah, am na ñeneen yi nga xamante ni mais tuuti par rapport ak li fi nekk ci ay chanteurs quoi. mais c'est ça en fait c'est minime par rapport ak ni ñu bëri nag man dinaa wax dinaa rafetlu magnifier li nga xamante ni moom la Gaka Blindé def. mais ak xëy na ñeneen yi nga xamante ni gisaguñ leen mais xëy na euh, ñooñu manifesté wu nañu mais itam. Euh, ñi nga xamante ni toog nañ nee nañ ay porteur de voix la ñu ay artistes la ñu ñu ci mel ni Youssou Ndour ñoom euh, euh, Thione Seck ñeneen ak ñeneen gisaguñu ñu def benn act bi nga xamante ni dinañ jug waxal askan wi waxal ak le chef de l'État mm. donc ñoom tamit benn part am nañ ci benn part de responsabilité partagée avec la population et même avec le gouvernement et l'État du Sénégal mm. donc nag ñoom comme que nu ñu defoon ci coronavirus bi mm. Euh, wëy ay génne ay single ay woy wëy on pour euh, le coronavirus donc mënoon nañ def pareillement euh, pour li nga xamante ni moo nekk manifestation bi. alors mën nga rebondir ci am na am na foo bëggoon rebondir mën nga mën nga mën nga rebondir fi nga bëggoon ñëw léegi. man li ma bëggoon wax rek mm-hmm. ci côté doyen Aziz mooy mm-hmm. que ni mm-hmm. li mu wax acte de vandalisme bi bi bi bi manifestant yi def bien vrai que ni duñ ko magnifier c'est pas joli pas du tout. loolu moom kenn du ko rafetlu parce que loolu kenn du bu fekkee teraanga donc doo rafetlu li nga xamante ne day yee fitna koo mën a doon day day day day day dégradé euh, li nga xamante ne économiquement duñ ci avancé donc nag man li ma mën a wax koy mooy que ni boo gisee les jeunes ñu manifesté wu boo gisee jeunes yi ñu am benn ras le mm. ah ci côté li nga xamante ne moo nekk côté état du Sénégal c'est parce que tey dañ leen teree ci manifestation mm. mënuñu manifesté wu mm. dañuy xool anam bu mu leen neexee ak ci ku leen neex wala soit benn bu fekkee benn. Euh, waaye warul tax ñu warul tax ñu yàq wala ñu taal. waa loolu yëpp am na. mais tamit waruñu euh, euh, maanaam arrêté mm. jeune yi nga xamante ne bëgg nañ manifester wu. Mm. wane seen mécontentement. Mm. envers l' état du Sénégal. waaw manifester moom c' est c' est waaw tout à fait normal. parce que loolu loolu c' est normal ça fait partie de la déjà constitution sénégalaise dañu ne duñu interdit manifestation donc nañ topp loolu. pourquoi interdire les manifestations bien vrai que ni mun nañ tere manifestation yi nga xam ne dina jur. ay euh, rëkk-rëkk ci réew mi dina indi ay fitna ci réew mi mun nañ xool anam bu ñuy encadrer loolu wala anam bu ñuy def pour loolu mën a bañ am mm. mais euh, interdire les jeunes pour manifester pour montrer leur mécontentement xool naa ni loolu jaadul donc c'est une voie benn voie la bi nga xamante ni jeunes yi <coughs> il veut se faire entendre par par l'état du Sénégal mm. donc c'est normal que ni ñuy toj ay kii parce que ah, amatuñu benn moyen ah non non non non je suis pas d'accord Sarah Sarah tu as tu as passé complètement à côté ci fait bi parce que la manifestation une manifestation elle mhm. doit être pacifique mais manifestation boo xam ni mhm. dañuy dem ba ay taal ay mhm. Auchan ay station une manifestation moom bu mel noonu kenn bépp citoyen euh, waru ko cautionner alors ci noonu ci noonu ci noonu ci noonu sarata ci noonu laay defee transition ci Abdou Aziz alors euh, mm. ñu ngi may signaler que ni ñaari simili ñoo ñu dese alors euh, ñu gis ni tension bi wàññeeku na mais l'urgence tey est-ce que warul nekk la libération par exemple euh, des autres par exemple détenus politiques comme ñoom biram Souley yi nga xam ni mooy administrateur Pastef euh, ñoom Clédor ñoom Assane Diouf est-ce que nekkul tey loolu moo war a nekk urgence pour gën a apaiser completement la situation mais bien sûr parce que c'est un c'est processus de de normalisation en tout cas de retour au calme qui est entamé. Hmm. donc c'est tout à fait logique que ñu ñu libérer ñooñu nga xam ne ni dañ leen wax ne c'est des détenus hmm. d'opinion. Hmm. comprendre nga. parce que ñooñu ñëpp dañoo défendre la personne de Ousmane Sonko moo tax ñu yóbbee <coughs> pour une pacification de l'espace politique. mais aussi tamit laaj nga ko solo mooy nos leaders d'opinion yi nga xam ne ni quand même ils sont restés muets. par rapport tamit loolu tamit euh, jara maanaam war nañ def jànga hmm. parce que moi je ma rappelle en 2008. Hmm. au stade Léopold Sédar Senghor am na match bu rëy bu fa amoon. Hmm. muy final département Ndar ñaari tamit contre moom sa réew bi incident yi amee pendant deux heures de temps. xale di xeex te Pape Diop nekkoon la parrain. Pape Diop nekkoon parrain bi. je me rappelle keroog il a fallu que Youssou Ndour wàcc. wëy mais xeex bi jeex. noonu la leen atte donc tey ñu ngi doon xaar tey acteur culturel yooyu nga xam ne tey maanaam dañ am réputation et puis c'est d'opinion au moins ñu génn ne serait-ce appel vraiment au calme à la sérénité malheureusement ils l'ont pas fait ou bien même bu fekkee dañ koy def peut-être que euh, bombe bi désamorcé nañ ko par rapport ak les deux discours d'hier du président de la République son excellence Macky Sall ak le discours du du de Ousmane Ousmane mm. vraiment mu nekk ay discours yoo xam ne nii am na ay similitudes maanaam am na ay nuróowaale surtout ci départ bi mooy quand on a parlé d'indemnisation des victimes ak ñi nga xam ne aussi c'est des là aussi vraiment bon xam naa la vie humaine n'a pas de prix mais au moins dañuy applaudir des deux mains hmm. du dëgg loolu nuróon nañ ko Ousmane Sonko nag am na ay actes yu mu posé maanaam am na ay conditions yu mu posé dans le futur même bu fekkee ne dina surseoir à la marche nee na dinañ génnaat maanaam pour li nga xam ne mooy revendication ñu teg ko sur la place publique. Hmm. attiré ci opinion bi Macky Sall il a tenu un discours assez responsable même bu fekkee ne sax d' après l' opinion ak saarem mi nga xam ne wax na ko léegi nee na dafa yéex a wax parce que olof Ndiaye nag mieux vaut tard que jamais il a parlé hier dans un sens où quand vraiment ah, reconnaître <laughs> reconnaître maa ngi ñëw mhm. reconnaître ne ce qui s'est passé cette semaine la hmm. c'est un message que les jeunes lui ont envoyé hmm. et il a message et que li nga xam ne daf koy def par rapport ak l' emploi des jeunes euh, maanaam yooyu yëpp dina ko gën a accentuer quand même pour que xam naa ne nag moom lenn moom il faut pas concevoir la face liggéey mun ko jox ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais au mois que les problèmes ponctuels yi nga xam ne. c'est eux qui ont promis qu'ils vont donner cinq cent mille emplois. <laughs> moi je ne suis pas un politologue ni un homme politique. moi uh-huh. suis un observateur. un uh-huh. analyste. Mm-hmm. de la situation politique au journaliste du mm-hmm. mm-hmm. damay analyser rek wax nga xam mooy suma je ne suis pas là pour défendre l'opposition je ne suis pas là pour défendre le régime je suis là pour poser maanaam un problème participer à un débat vous avez vu et il faut pas que se voit là les pays les plus développés au monde am na fa ay chômeurs donc tey il faut pas qu'on mais quand il y a des problèmes ponctuels auxquels les jeunes sont confrontés il faut que ces problèmes ñu apporter des solutions parce que ñoom ñoo yor le budget du Sénégal ñoom ñoo war a répondre aux préoccupations des Sénégalais. malheureusement Abdou Aziz euh, kàddu yi am na solo signalé nañ ma bu yàgg que ni temps bi jeex na. alors euh, li ñu mën a jàpp ci Macky Sall ak Ousmane Sonko Macky dégg nañ ko ci discours am mu wax vivre ensemble wax na compassion wax na démocratie euh, gis nañ Macky Sall boo xam ne démb dafa wàcce boppam carrément. Euh, defe naa ni aussi euh, loolu aussi ça a été une très bonne stratégie pour Macky Sall pour mën a mm. camper le jeu Sonko aussi euh, dégg nañ ko ci discours am aussi li ma ci gën a neex wax nga ne ni kenn warul cautionner armée di jël pouvoir mm. wala mbedd mi di jël pouvoir war nañ mën a gunge Macky Sall ba mandaam jeex euh, ñu dem ay élection def élection yu démocratique mais mm. tudd nañ aussi tudd na aussi lancé na appel aussi mouvement MFDC bi nga xam ni boo xoolee mouvement MFDC ñu ngi ko créé am na sax ñuy wax ni 1981 83 mais tu sais que MFDC ñu ko créé en 1940 par Ibou Diallo ak Émile Badiane y compris même ah, y compris même Assane bi nga xam ni moom lañ tuddee université Ziguinchor loolu c'était en 1940 donc foofu aussi j'ai vraiment aimé le discours de Sonko et j'ai aussi aimé le discours de Macky Sall donc euh, temps bi ñu mayoon vraiment jeex na sama gars yi kon xanaa euh, Sarata euh, nga nga nga tàggoo le temps may jox Abdoul Aziz mu tàggoo aussi bon en fait man kay li ma mën a tàggatoo muy que ni Euh, j'appelle aux jeunes euh, d'apaiser sous choses euh, que ni ñu ñu ñu ñu ñu ñu indi calme ci dëkk bi mhm. ah, ah. mooy njëriñu ñëpp ah waaw njëriñu ñëpp voilà loolu loolu mooy maanaam responsabilité de tout un chacun donc nag du ñu rafetlu ci ci ci acte de vandalisme bu ñu def waaye itam ki nga xamante ni tamit moo nekk njiitu réew mi tamit na bàyyi xel itam ni askan wi moo ñu yilif askan wi dañu am kóolute ci moom. ngir ñoo ko aussi ñoo ko fa teg donc nag bu ñu nammee jëlee ko fa donc nag y' a pas de discussion donc nag itam dañu rafetlu ki nga xamante ni moo nekk euh, Ousmane Sonko. Hmm. discours am bi tamit rafet na waaye itam président monsieur Macky Sall discours rafet na donc nag c' est ça que j' ai à ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw xanaa di rafetlu en tout cas la pertinence du thème. Hmm.

solennellement lancé au à toutes les populations et toutes les couches sociales. di ko lancer aussi aux autorités quand même ñu xam ne Sénégal ñu ñoo ko moom personne n'a le droit de détruire pays. macha allah Sénégal ñoo ko moom kenn amul droit taal réew mi euh, noonu kon la ñuy tàgg tàgg ko tàggale ko suñu mbokku internet yi ak suñu mbokku téléspectateurs yi. amoon nañ vraiment mbégte ànd ak yéen ci télé bi nga xam ne moo feeñee lépp lu nëbbu làmbook njëriñ euh, di leen jox dig daje euh, suba